conseil économique social et environnemental bi nga xam ne am nañ fi fukki weer ak juróom-benn ah ci diir woowu nag liggéey naa ci ak euh, ñoo xam ne ñi foog ma sant leen tey ci ki may commencé mooy suma directeur de cabinet muy magistrat bu xarañ muy Cheikh Dieng maa ngi lay gërëm di la sant ci liggéey bu rafet wi nga xam ne def nga ko ci sama wet di la ñaanal yàlla yàlla jàppale la Euh, ci sa carrière ah maa ngi aussi secrétaire général docteur Anta Sané nga xam ne session yeeg ni nuy liggéeyee fii euh, ci ñi jàppale ci organisation bi ci la bokk liggéeyam rafet na moom it ñu koy gërëm euh, di ko ñaanal yàlla ci li nga xam ne moo ci kanamam ak conseiller muy conseiller diplomatique bi muy conseiller technique yi muy conseiller spéciaux yi mais surtout conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil économique social et environnemental nga xam ne téeméer ak ñaar fukk lañu situation bi moo tax mënuma nuyu ku ci ne waaye ku ci ne maa ngi lay gërëm di la ndax ku ci ne indi nga sa contribution ci diir bi nga xam ne nekk nañ fi liggéeyandoo fii ci conseil économique social et environnemental ngeen xam ne conseil bi ku nekk ngi baykat yaa ngi fi natt macha allah Sénégal su ndaw la te ku ci nekk yaa ngi indi contribution contribution yooyu nag tënk nañ ko ci ay rapport yu am solo ndax nag li ñu war a jàpp mooy conseil économique social et dafa di institution bu am solo ci sunu réew ndax action balaa nga koy def da koy xalaat kon kii xalaat ak bërëb bi nga xam ne bii dajale na doomu Sénégal yépp kon lu màccee foofu rek war nañ koo xool bu baax boole ko ci ni ñuy liggéeyee bu ko defee liggéey wi gën a rafet kon ñooñu gërëm naa leen euh, sant naa leen bu baax a baax a baax bari na nag luñ fi waxtaane sant aussi ñi nga xam ne ñëw nañu euh, ba fekkee euh, maanaam ak par exemple ba nuy def sunu waxtaan bi sur le civisme ñu mel ni marchand ambulant yi ñëw nañu fi ba ñu waxtaan ak ñoom réew mi li mu laaj mooy aussi ku ci ne nga dugal xalaat voilà ci ni muy doxee du rek ki nga xam ne moo jàng waaye ñi nga xam ne ñi aussi ña ngay liggéey am na ñu expérience kon loolu yëpp moo dajaloo fii ci conseil bi kon conseil économique social et environnemental dafa di lu ama am solo euh, te war fee nekk ba faaw ok euh, bëggoon naa euh, vraiment wax ko ah li nga xam ne nag mooy li ci des mooy fexe ba liggéey woowu it aussi mën a continuer bu ko defee continuer mën a jàngat ci expérience bi nga xam ne euh, moo toog fii ci conseil économique social et environnemental kon booba ba tey depuis huit ans voilà ci position yu bëri ñu ngi servir état avant ça nag am nañu carrière internationale carrière nationale loolu it xale yi xam ne aussi euh, noonu la àddina da ngay da ngay da ngay ramper ñun jot nañ def nos exercices euh, li ñu ci mënoon a def def nañu ko ak engagement ak transparence ak probité kooku dañu mës a jiital ci liggéey woo xam ne moom la ñuy def ak fu ñu mënti dem voilà fu ñu mën a dem parce que yàgg na noo liggéey ah ba ñu fay jógee it gërëm nañ ñu sant ñu ah fii it def nañ fi naka ni noonu àddina nag day continuer li ma ci mën a wax mooy sama liggéey ci Sénégal ak liggéeyal Sénégal ah danaa ko continuer yàlla na yéex ba keroog ba fiy jóge ndax nag loolu laa ameel suma réew loolu mooy li nga xam ne moom laa amee suma réew mooy ak fu ma mun a ne muy poste par poste mooy ma liggéeyee sama réew ba Sénégal ni ñu ko xamee ci pays boo xam ne li tubaab naan pays avant-gardiste ci démocratie maanaam ñu ràññee ñu ci wàllu démocratie ràññee ñu te loolu bu yàgg ba tey foo wax Sénégal vraiment nit ñi dinañ taxaw déglu loolu nag dañ ci continuer dugal suñu loxo ba suñu way bu rafet boobu continuer voilà ñu continuer aussi jàppale suñu ndaw ñi kooku ne lii ñun ñëpp tiis la ci ñun en tant que yaay en tant que responsable sunu xale yi nga xam ne ñooy ñu koy waxee mbëkk gaal gi loolu it ci réew mu bëgg a avancé war nañ cee jóg bu baax a baax a baax gën jàppale sunu xale yi jàppale ndaw yi kañ leen ñoom it ba ñu xam ne seen avenir fii ci Sénégal la nekk ñoom ñu bañ a toog rek participer bu ñu amee lu ñuy wax ñu wax ko loolu it organiser wu mën a liggéey ba nga xam ne bii ëllëg ak si biir ñoom ñi nga xam ne li ñuy séntu ci ñoom mooy ñu nangu lii ñu doon def ñoom it ba mën a jëmale Sénégal kanam loolu mën a am kon ginnaaw bi ñu jaalee famille yi ñi fi jóge bokk ak ñoom tiis bu méttee méttee métti bi ndax nag chance rek mooy tax sa doom bañ see bopp ndax boo juddu woon ci famille yooyu ah mën na doon mënoon naa am muy sa doom moo des ci gaal yi kon amul kenn koo xam ne ki solidarité woo solidari woo ak famille yu ñi nga xam ne ñooñu lañ fi jóge vraiment ñu ngi leen di jàll di gën a kañ suñu jeunes yi liggéey ak la jeunesse wax leen ne l'avenir leur avenir est ici au Sénégal leur avenir est ici en Afrique wax leen ne duñ leen mën a bu sa sori toujours dinañ ànd ak ñoom expérience bu ndaw bi nga xam ne am nañu ko ñu partagé ko ñoom mobiliser leen ba nga xam ne bii dinañu tekki fii ci seen réew kon loolu leen ñu bëggoon a wax encore une fois gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp yéen aussi presse bi vraiment euh, amuñu seen fay ndax d'abord seen patience ndax xam ngeen heure Sénégal toujours waaye toujours da ngeen di patient te lépp lu ñuy liggéey fi bu ko sénégalais yi xamee ci seen loxo la jaar yéen ngi jouer un rôle fondamental ci gindi askan bi wax leen di xew ci réew mi yéen ñu ngi leen di encouragé euh, ba nga xam ne bii seen liggéey di ngeen ci am satisfaction sénégalais yi aussi am satisfaction ci yéen ndax seen information doon information boo xam ne euh, dana leen yee dana leen jëmale kanam xam naa ne nag ku ci ne ban ngaa laaj question politique waaye daf dul béréb bi ndax république dañ koy séparer ak politique man loolu laa xam. fii du ma wax politique fii ci béréb bi nga xam ne mooy conseil économique et social waaye ni ngeen ma xamee xam ngeen ne Aminata Touré dana wax ak yéen ci politique incha allah ci diir bu gàtt maa ngi leen di gërëm euh, di leen sant di ñaan yàlla aussi dàqal ñu fu gën a sori Covid 19 bi nga xam ne moo fi ne ba tey waaye chiffres yi di wàññeeku mu dem a dem a dem ba jeex ci àddina bi jeex ci Sénégal maa ngi leen di gërëm wasalaam.